sëkku mbooloo baraka mbaa yéen a may dégg yéen may dégg déggu ma de est que yéen a ngi may dégg kon nuyu naa leen yéen ñëpp maa ngi nuyu délégation bu ànd ak madame la ministre dama kontaan bu baax a baax madame ministre Zahra Iyane Thiam future maire waa Baraka sama waxu démb mooy sama waxu tey bi may ñëw fii maa ngi am 9 ans kon 9 ans loolu du tey Macky Sall defaral ñu yii kon amuñu dara lu ñuy fay Macky Sall defaral ñu yii kon képp ku yeewoo biir baraka jaru ngeen di bañ leen di wax lan mooy suñu wareef suuru la 23. lan lañu war a delloo Macky Sall ñu leen koy wax ñun sene baraka yéen ñëpp ñun ñu leen koy wax parce ku dem côté boo ñëwee yaa ngi dugg si ma si kër ma si koy delloo njukkal mooy suñu ministre baa ngi nii ñu yóbbu ba mairie sànnil ko suñu carte yi képp baraka jeunesse baraka loolu laa leen sama yaay sama papa yi kenn yal nañu yàlla jàppale le 23 ñu dem ba mairie ba suñ ko yóbboo ba mairie ba suñu feet buñ koy def fii bu benn par benn la ñuy benn par benn la ñuy wax yal na ko yàlla yóbbu ba mairie te gagné nañu ba pare ñun gagné nañu ba pare ñun dem nañu mairie ba pare ñun dem nañu mairie ba pare Macky Sall nañu sànnil ko carte yi nañ ne ko sànnil carte yi ku dem jour ba ci vote ji boo xalaatee Macky rek di nga ko delloo njukkal boo xalaatee Macky Sall jour boobu say kàddu di nga ko delloo njukkal yal yàlla fekkee ba jour ñun gañe nañu ba pare ñun gañe nañu ba pare Zahra Iyane Thiam dina a tiis tey ma yëkkati ay kàddu ndax sama waajur dafa toog ci jataay bi maa ngi koy tuubal bu baax di ci ñaan ndigalam pour yëkkati kàddu yi da nga ñëw foo xam ne boo fii ñëw madame le maire doo laajte ni ko suñu wajur waxee léegi sa jëf dafa jiitu sa jëm fii ci quartier bi waaye jëfu président Macky Sall dafa jiitu jëmmam fii ci quartier bi ndax ku xamoon barak en 1991 bi ñu koy samp nga xam ko en 2021 ak 2022 nga xam ne y a un très très grand changement donc et tout ça c' est grâce au président Macky waaye balaa may xaabaabal damay nuyu sama yaay yii ñun làmbatuwuñu madame le maire population jeune bi nga gis ni yëpp ñoom ñëpp am les cartes volontaires pour dire que ñoom ànduñu ak yow parce que mbooloo la ànduñu ak yow te it sax ci sa démarche doo jox kenn dërëm pour mu ànd ak yow dañuy ànd ak yow conviction ñi ñëpp conviction la ñu te incha rabbi au soir du 23 janvier du 23 janvier incha allahu rabi ñoo lay gunge ba mairie caabi caabi population Barade ñoo les clés de la mairie sont entre les mains de la population de Baraka en grande partie et incha allahu nous allons vous remettre ces clés là j'interpelle phase bi ñu président Macky Sall keroog conseil des ministres bi fii madame Hütte Henriette Hoven di ñëw di yónni doom Claudia président Macky Sall dafa woo Zahra Iyane Thiam boo ko ak Claudia ne ko dama bëgg nekkal ma fa baraak ba liggéey yi fay liggéey yëpp àgg gis ngeen extrait actuellement nii accéléré liggéey bi te moom mii moo servi d'interface dox suñu diggante ak le président de la république kon bu ñëwee bërki démb na moom mooy ndeyu baraak indi fi teraanga yu bari indi fi ay cin ay bool ay leget ay lépp tout nag madame la maire ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm madame la maire de Sicap Liberté incha allahu rabi au soir du 23 janvier nous allons fêter Baraka après avoir fêté à la mairie de Sicap Liberté parce que comme je le disais tantôt Les clés sont entre les mains de la population, notamment de la jeunesse de Sicap Liberté. Madame le maire de Sicap Liberté population bi nga gis nii ñëpp am carte te ñëpp ay voté parce que encore une fois teranga bi Macky Sall ko ji te bëgg nañ bis buy ñëw di inauguré fii mu ànd ak madame le maire Zahra Iyane Thiam ànd ak seen ministre ñu ñëw te incha allahu rabi noonu lay demee. kii laa incha allahu rabbi billahi wallahi tallahi yow lay votel aussi simple que ça dama bëgg nag ku ci nekk nga am conviction boobu parce que lëg bu lekkee alom na nga ko demee coy ganaar na naa ne xoole ba ba set ñu xëy dem jàngi école loolu amatul ñëpp fi lañ jóge jàng am bac bay def doctorat kon sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin donc madame le maire des Sicap Liberté Zahra Iyane Thiam ñu ngi lay sant di la di joxante rendez-vous à la mairie de Sicap Liberté au soir du ci man jeunes yi surtout jeunes yi ndax ci suba bu nekk si suba ba léegi lu ne lañu daj ndax tamit euh, yàqkat yi bëri nañu trop sax mais fi ma wax la ne yaa bu ñu nekkee ak yow ba léegi matul un mois mais du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg xale yi di veillé. di surveillante même di ma garder ndax sama sécurité ndax euh, ñoo xam ne yàq moo leen tax a jóg mais yàlla du leen du leen seetaan di wax ne ne barak ku am xel lu may wax nag sama xol laa koy kii bu may ñëw fii cinq laa am ci digg nit ñi laa nekk ñu ngi nekkoon fee lëndëm na lampe tempête lañ doon jàngee ba di dem ba camp di rooti di fa di fa seetaan tele ñu ñëw nag cité yi làmp yi ne nañ ku nekk ñu jox la sa appartement grace à Macky Sall ak madame Henriette Aubane di ko di remercier moom tamit ndax tamit Macky Sall du nangu moom moom du nangu woon Macky dañ koy wax waaw di wax ne nag ba Barak majorité bi lu ci des sax bëreetiwul yëpp a ngeeg yow madame Zahra Iyane Thiam digg Barak laa taxaw di wax loolu dañ koo liggéey te dañuy continuer di ko liggéey jusqu'au soir du 23 23 euh, janvier ànd ak yow ba mairie bi gunge la waa Barak ñoom ñëpp a déterminé jeunes yaa ngi nii ñu liggéey sax instant seen liggéey dañ koo arrêté di porte à porte di fanaan di def yëpp di gërëm suñu chef de quartier Abdou man kuy liggéey xam naa ko gërëm naa leen yéen mënoon ngeen ne dugal goo leen ci immeuble bi wante ñu ngi leen di wax lu nekk mais da ngeen fëpp ñëw ànd ak man maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf waaw. maa ngi moom ak forul ak moom ñëpp la financé loolu man maa ngi koy wax ñëpp la financé xoolul dara ñëpp la jël financé leen te loolu borom xol bu rafet moo ko mën waaw. loolu moom dama koy ci sant di ko ko gërëm cin desul dara desul waaye nag yow dina madame la ministre doo ñu tax a doo ñu gën a gore ñun. ñun ñu des ak yow dinañu liggéeyee liggéey liggéey ba ba baraag yëpp nekk sa ginnaaw te ñu ngi ci kaw maa ngi sant ñëpp délégation Aïdara ñu ngi prochain maire de Sicap monsieur le délégué quartier de Baraka maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak délégation Benno Bokk Yaakaar bi fi nekk di nuyu Oumy Senghor di nuyu suñu sœur Mame Diarra ak Badiane ñu ngi leen di nuyu population Baraka defe naa lii njukkeel la rek ndax euh, dañu nekk ndam naam ci campagne ku ne dina dugg ku ne dina diggee mais da ngeen di xool ñuy diggee ban considération la ñu am ci yéen te yaakaar naa dem la ministre bu ñu nee Sicap ki mu dugal ci biir xolam mooy waa Baraka kon njukkee loolu da ngeen ko ko war a delloo ba mu mag sëkk wute naag ñiy ñëw Baraka ne dañoo bëgg a diriger commune bi di leen xoqatal naka ngay bëgg a diriger ay nit ñëw di leen jaay doole kon da ngeen di moytu xool ki leen sopp ngeen sopp ko ki leen teg place ngeen teg ko place dañuy wax tout à président Macky Sall li mu def baraka kooku bu ñëwee am lu mu leen ji daal di tànn ci commune bi ne kii mooy sama ndaw kii laa bëgg ñu teg ko ci boppu mairie bi defe naa boo leen amee njukkeel boo leen amee reconnaissance boo leen di delloo président Macky Sall mooy kii mu fi teg ngeen jàppal ko ko ak fukki loxo donc ñu ngi leen di woo bu leen kenn nax ñooñu di leen fa xoppatal teg leen leen fële am leen seen fulla xam ne ki leen jox añ jox leen ndekki bu leen nee di ngeen reer ngeen war ko gëm. jeunesse bi tout à l'heure ñi doon way dafa am message yu am solo yu ñu dugal seen biir son bi ku ci def attention xam ne lii lu daw yaram la te c'est une réalité boo xam ne dañ koy dund ndax dañoo am ay rak am ay dëkkandoo. ñu jàng am seen ay diplôme bëgg liggéey mu tëleen mais tey madame la ministre defe naa am na ay relation yoo xam ne xaj na nga diplômé peut-être amuloo yenn formation yi wala amoo yenn qualification yi pour nga am liggéey du yomb tey ay formation professionnelle mi ngi fi te ministre la nekk ci gouvernement donc buñ ko gënee dooleel formation professionnelle yooyu yaakaar naa madame la ministre war nga ko mën a jël ñëw dimbali si jeunesse su SICAP ñu ku ne am métier malgré leur diplôme qu'ils ont ba dina leen permettre à ñu am ci lu ñu jàpp am si lu ñu mën a suqalikoo vraiment euh, wax ji fii laa koy yemale di la. te lool fii tey. maa ngi nuyu imam Thierno Ba di ko sant di ko gërëm moom ak suñu papa Pa Saw may bëral loxo delege sëy ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan sunu borom dëgëral seen taxawaay bàyyi leen ci kanamu njaboot gi yéen ak suñu kilifa yi fi nekk yépp lu yàgg lool lool lool ñoom jaara ak ummi sengoor wax nañ ko saa bu ma fi ñëw yéen a ngi suñu wet liggéey bi yéen a ngi ciy jàpp yéen a ngi ñaanal suba ngoon guddeeg bëccëg yéen a ngi ñuy dolli xel yéen a ngi ñuy wan yoon kon buñ leen gisee fii ngeen toog suñu wet duñu bett ndax dangeen ñu boole ci njaboot gi yàlla na leen yàlla fay may nuyu responsable yi nga xam ne ñoo jël tey kàddu ci seen tur yéen waa barak Euh, Ummi Senghor wax na Jaara wax Jaara Fay wax na Aïcha Bari wax na Sëy wax na foog naa bàyyiwuma kenn ci ñi wax ñëpp lim naa leen awa baaxum bàjjan wax na yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm da ngeen wax ci turu baraka waaye du wax rekk ci turu baraka ngeen di def yéen a ngi wax ci turu baraka waaye yéen a ngi jëf ci turu baraka ma bëgg ngeen tàccu leen ndax ñoom ñii ma lim ak ñeneen ñoo xam ne xawma leen te ñu ne fii ci biir jotaay bi ndax groupement jigéen ñi bari nañu groupement ndaw yi bari nañu maanaam ñi fi ne ñépp ñi nga xam ne ñi ngi bokk jàpp ci liggéey bi ñuy def takku nañu lool te xawma leen yéen yépp yal na leen yàlla fay mais jàpp naa ne fay bi ngeen di xaar surtout fay bi ngeen di xaar surtout mooy li président Macky tàmbali fii biir Barak ñun ay ndawam bés bu ñu teewgee ci mairie bi ñu yeggali ko ma leen di indil nuyoo président Macky Sall ndax nee naa leen fii titre foncier wu président la ku fiy dugg rekk danga war a demander permission ndax yéen a ko waxal seen bopp président makki sàll moo leen defal lu kenn leen kenn defal te loolu mu def da ko war ndax moom mooy le père de la nation bu demee ba ñu yàgg leen bëgg jëlee fii moom mu ñëw ne waxuma la jëlee sax waaye damay tabax ay immeuble yoo xam ne da ngeen ciy dugg dama ne gàcce gaalaama président Macky Sall bi ma fi ñëwee ñoom jaara dañuy waxtaan ak man di ma nettali fi ñu jaar moom nee na bi mu amee juróomi at la fi ñëw ummi sangoon ne bi mu amee juróom-ñeenti at wóor na ma ne bari na fii ñoo xam ne bi ñu nekkee tout tànk lañ fi ñëw ñun nag ñu bokk dëkk ak yéen bin baraka xam ko lool jamono yiñ doon toog naan dangeen ngeen fiy jóge lu bari jaar na fi ndax fii lañu bokk dëkk ak yéen baraka nag bokk ci Sicap Liberté nekk xolu Sicap Liberté tey képp koo xam ne am na looy yóotu biir Sicap Liberté te boolewoo ci baraka bu yeboo nga xam ne nga dem tëdd nelaw doo dem te waa baraka xam bu baax lu ñu bëgg waa baraka xam nu ñu war a taxawee xam nga lan moo tax ma jàpp ñoom jaara ñii di ñëw ndax nag commencé naa ci miin ñu bari lenn rek a tax ma jàpp leen te ni ma leen jàppe jàpp naa ne yéen ñépp noonu ngeen mel ndax benn wan nañ ma ne benn say la bañ nañ ko ba ku fiy dugg si munoo xam ku ànd ak yow ak ku àndul ak yow ndax ñëppay wàcc teeru la nga sa gan jotaay bii tey bu fekkee ne ku xam dëgg baraka la danaan fii gan dafa ñëw muy ganu jaara muy ganu Oumy Senghor muy ganu beneen jaara ku ñëw rekk dañ koy teral ndax fii ñun ñëpp benn say lañ kon li tax ma jàpp ñoom jaara mooy dañu gëm seen bopp dañu gëm seen bopp dañu gëm yàlla ba pare doyloo seen bopp te jàpp naa ne ñoom noonu ñu mel noonu la yéen waa baraka yi mel kon tey lii ma am nii te du tey laa fi door a ñëw ndax ñëw naa fi ñëwati fi ñëwati fi délégué sey mii mat na ma seede bi ñuy tàmbali di ñëw baraka yàgg na ñu fiy wàññi benn benn lañ fi am benn benn lañ fi am ba tey ngeen ne ma li ëpp ci baraka yow la àndal loolu lenn rekk a tax ma gëm ko comme da ne baraka benn say la gëm naa ne say wi fenn rekk la mën a xool ndax nag góor ca wax ja te góor góor rek la mën a doon te président Macky Sall mën a leen ko dendaleeg leneen te dafa am liggéey yu ñu yu ñu dese war a defar ndax première phase bi pare na deuxième phase baa ngi ñëw mais particularité Baraka mooy jeunesse bi macha allah daf fi am te jeunesse boobu am nag dafa war a bokk ci perspective commune yi kon yéen jeunesse bi bu ngeen di tànn bu leen kenn tànnal tànnal leen seen bopp man tey jeunesse bi laay waxal ndax nit nee woon na day ñëw fii def naka sudul noonu dangeen ko ne génnal ci biti fii lu ñu neex moo fi am kon li leen war a neex mooy lépp loo xam ne mën na dëgëral seen avenir mën na jëmale seen avenir kanam ndey màggetloo wax na ko Lamp Fuuta jàpp naa ne message bi mu wax pour yéen ñëpp ko tax mu wax ndax nee na xale yi boo leen joxul xëy boo leen joxul opportunité dinañu dem ak agressé mbaa ñu dem immigration te loolu du leen neex kon nañu joxante loxo parce que ñoo bokk génération mais nañu joxante surtout loxo parce que ñun ñoo décidé décidé ne kenn dootuñu liggéeyal suñu gox ku dul ñun ñun ñooy futteeku nekk ci terrain bi liggéey loo xam ne danañ ci am formation liggéey loo xam ne dinañ ci am métier liggéey loo xam ne danañ ci mën a tedd suturloog suñuy waajur ndax ñoom liñ waroon def def nañ ko def nañ ko ba ñu toll fii kon le 23 janvier bu ngeen di tànn meer na ngeen tànn meer bu mel ni man na ngeen tànn nangeen ngeen tànn seen yaay ndax keroog bi ma fi ñëwee dama ne baraka ndeyeele naa leen sama bopp te li tax ma wax loolu dama gëm ne fii bu ñu jàppante doon benn say li ñu namm ci réew mi dina am ndax gox bu ne su taxawalee goxam senegaal mooy jëm kanam te ñun amuñu feneen fu dul Sénégal man sama wàllu bopp awma feneen fudul liberté te baraka dafa bokk liberté nekk ci xolu liberté kon awma fenn fudul baraka li ma bëgg def nag man ak waa Bennoo Bokk Yaakaar yi ne fii yëpp may nuyu responsable yëpp kenn desul ñoom ñëpp ñëw ne ba ci waa marché bi ñëw nañu ñoom Rose ak ñoom Astoog ñoom ñëpp a ngi fi maa ngi leen di nuyu jaara dafa am ku ma yóbbante ci yéen du président Macky Sall moom nuyoo la leen yóbbante ndax ku fiy ñëw rek day yóbbante nuyoo mais Ablaye Diouf Sarr daf ma yónni ci waa Barak nee na pavage bi ngeen di xaar bés bu nekkee maire de Dakar day ñëw ndax am na lu bari loo xam ne fas yéene nañ ko def ci biir commune bi mën naa jàpp ne genn wàll gi ñun mën nañ débrouiller ak li ñu am mais li ëpp ci li ñu yéene askan bi bëgg ko def lu ci ëpp ci ville de Dakar lay jóge ndax ñoom ñoo ñu ëpp ressource kon tey li ñu namm root yëpp pour sotti ko suñu commune dinañu root genn wàll gi jóge fii waaye beneen genn wàll gi foog ñu rootee ci ko ville de Dakar te ville Dakar nag suñu candidat c'est le ministre Ablaye Diouf Sarr kon bu keroogaa le 23 janvier bu ñuy voté ñaari yoon lañuy ñuy voté am na votu commune bi fukki candidat la bu ngeen duggee ci bureau de vote bi jël fukki xob yépp ba pare dingeen ci gis xob bu mel nii boo leen nekkee ci bureau bi jël leen fukki xob yépp ndax fukki candidat lañ waaye bu ñu xasee ba dugg ci mbañ gàcce bi nañu jël xob bu chocolat bi am bopp fas boo ko jëlee dugal ko ci enveloppe bi jël kenn enveloppe bi delloo ci tëj bu ko kole danga koy roof ci biir nga ñëw ci urne bi dugal ñu ne la jaaraatal pour fal ki nga xam ne moo war a dem ville de Dakar foofu juróom benn candidat moo am pour ville de Dakar boo leen jëlee juróom benn xob yépp duggaat ci mbañ gàcce bi tànn bii bii mooy ban bii moo ban bii mooy bu baax bii bii moo ko yor bii mooy lijjanti suñuy soxla ci bii lañu jàpp ngir njaboot ñu roofaat ko ci enveloppe demaat ba ci wirnde bi ne ko ci bëy naqaree ba ñu wàññi xob yi délégué ba xob yi mel na ko bëggee woon téeméer ñeneen yi junni ñun su boobaa lenn rekk mooy des mooy li ñu waxante askan bi ñu wàccoo ko ndax nag askan bi dafa am lu muy laaj wax rekk pour am dem dañ ko war a bàyyi wala wax lu neex rek pour nit ñi voter la nga gañe fàtte leen dañ ko war a bàyyi moo tax ñun nee nañu bëgg nañu nekk maire boo xam ne askan bi bu ñu soxlaa gis ñu bu ñu bëggee wax soxlaa mën a ñëw gis ñu décider nañ ne juróom benn weer yu ne dinañ def daje ak communauté yi dans le cadre de la mairie pour ñu wecconte xalaat xool li ñu waxoon na dañ koy wàcconte ak askan bi fuñ ci toll décidé nañ aussi weer bu jot dinañu wàcc ci benn quartier wax ak nit ñi ndax liggéeyu mairie bi maire bi lu mu am am am yéene bu ci population yi bokkulee du dem kon na ngeen xam ne le 23 janvier incha allah bu ngeen votelee liste Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté voté liste Benno Bokk Yaakaar ville Dakar na ngeen xam ne fasante ngeen ak kóllëre koo xam ne saa boo leen ko bëggee gis di ngeen ko gis te seeni yitte ak seeni soxla dana ca daw suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñenn ñi nag ñenn ñi nee ma yow ministre nga kon am nga ndomba tànk ba pare boo amee mairie bi wóor nañu ne du yow yaa fay toog da ngay wut mairie bi gañe ko boo ko gañee ba pare dem indi la fa toogal pour mu liggéeyal la loolu lañu wax kon nag ma koy wax ci suñu kanamu imaam yu tedd yi ndax fii nag bërëbu ñaan la ku xam baraka ku ne xam ne bërëbu ñaan la may ñaan ndax engagement dafa fort boo demee ba sàkku def dara na fekk nga gëm ko te boo ko gëmee ba pare na nga ko mën ndax mën ngaa gëm te doo mën mën ngaa mën aussi te doo gëm mais na fekk nga gëm ko mën ko kon mairie bii may sàkk incha bu ma askan bi tegee si siis nañu xam ne maa fa naan denc toog liggéeyal la kenn du fa bu njëkk dañ doon ne liste ngay votel bu njëkk code bi li mu doon def kenn xamul woon ban maire ngay fal da gis ku ñëw jiite liste nga dawal ko fal ko bu ñu paree conseiller yëpp tëju ci ne génne keneen ne kii mooy maire ñu dindi loolu révision code électoral bi am ñu ne dorénavant donte liste la nit ñi di fal nañu xam ne ki jiite tête de liste majoritaire bi mooy doon maire kon léegi bu ñuy fal conseiller dañuy falaale maire kon population yow boo ñëwee ba taxaw laaj leen seen baat ba ñu wóolu la ba fal la bu ko tayle man de fas yéene ko tayle ndax li ma def kenn du ma ko maanaam sama engagement kenn du ko jëlal maa koy jëlal sama bopp te buñ ma wóolu waatee def ma ministre it danaa seet la may lijjanti li ma sombi moom danaa ko naan am na ñoo xam ne nag li ñu sombi duñ ko naan waaye man na leen wóor ne li ma sombi dina ko naan te bu ma ci amee seen soutien dinañ àndandoor def ko kon nag waa Baraka maa ngi leen di féliciter di leen encourager di gëm ne fii moom keroog bu xob yi génnee na ñëpp dem tëddi nelaw te sey wax na ko borom caabi ji na ko pare na ko fomp ba mu set maa ngi ñëw jël suñu caabi ñu ànd dem ca commune ba maa ngi leen di sant di leen gërëm